alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulil amin wa baad mbokk jullit yi na nga xam ne bokk na ci jukko yi gën a kawe yoo xam ne sunu diina ji man koy woote camoo yi ñu daal di def njekk ci sunuy wayjur ñooñu nga xam ne ñooy cosaanug sunu am ñooy cosaanug suñuy texe nit ku amul ay wayjur kooku du dox ci kaw suuf abadan loolu moo nekkoon melokaanu yonent yu màgg ya sunu borom mi ngi ñuy nettali yonent yàlla yaxya ba mu juddoo day yàlla mu ni def naa ko muy kuy def njëkk ci ay waajuram musul doon kuy mbëru musul doon ku leen di mooy benn yoon xatta jaamam ba isa nga xam ne benn waajur la amoon sunu borom seedeel na ko ne nekkoon na di def njëkk ca waajuram boobu muy Maryam mosul nekk ko mbëru musul nekk ko texee di mu wax ñu jaamam bu ñuy wax Ismail waajuram ba ñëw na sant ko ndigal bu gën a màgg ci ndigal ca mooy sama borom nee na nga ñëw ñu dem ma rendi la waaye def na ko ay sama baay defal li la yàlla sant danga ma fekk ma bokk ci ñi nga xam ne dañuy muñ yow mi bëgg a def sa njëkk ci say waajur xamal ne am na ñetti charte yoo xam ne munu ca manqué charte bu jëkk bi mooy sa ndigalu jur ak dabbanne xam nga jiital ko ci kum mën a doon ci kaw suuf na doon kooku kilifa la walla na doon sa njaboot la soxna la wala ay doom la ak mbooloo mi nit ñi ñaareel bi mooy nga topp leen ci lépp loo xam ne dañ la ko digal te fekk man nga ko ca fekk ak lor nekku ci nekku ci allahuma lu dul fekk loolu nekk ak mooy yàlla sunu borom mu ne li gën a bon ci kaw suuf nga xam ne muy bokkaale même bu ñu la sante ne la kay bokkaale bu leen topp ci bokkaale gi waaye suñu borom waxul na leen dagg sànni waaye daf ne àndal ak ñoom ci àdduna ci njëkk amma ñetteel bi mooy ngay jéem a dab seen bànneex bul wax rek ne damay xaar lu ma sama waajur sant ma def bal fàttalikul nii ba nga nekkee xale say waajur ñu ngi doon daf say bànneex ci munoo wax lépp luñ jàpp ne yow bëgg nga ko ñu taxaw ci suba ak ngoon naka noonu itamit bul xaar bàyyi di la ñaan wala yaay waaye góor góor góorgóorlul nga jéem a daf seen bànneex te it nga boole ci yëg ne loo leen mënoon a defal bu doon sa dund gépp danga nga leen koo jagleel alal joo mën a am nga financé ko ci ñoom taxul mukk nga matal àq ba nga xam ni yoraloon ngeen ko suñu borom mu ne dogal naa ci bu ñu jaamu ku dul man nañ def njëkk ci way jur yi su dee dem nañu ba kenn kenn ci ñoom daal di ci say wet wala ñum ñaar ñëpp nga xam ne seeni jukko day la ngalawaay bu leen wax uf ngalawaay bu leen gëdd tànnal wax yi gën a sell wax yi gën a rafet nga wax ko ak ñoom te it foo toll ngay ñaan yàlla yàlla ni nga leen yërëm niñ ma yër <coughs> niñ ma yërëme woon bi ma nekkee xale nga fàttali ko loolu xam ne mënoo leen a fay nga leen di ñaanal foo mën a toll ci xam ne mbokk def njëkk ci way jur bunt la ci la nga xamee ne nii moom mooy buntu aljana yi bunt la ci buntu aljana yi yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bunt bi gën a digg doomu bu nit ñi tabbe aljanna mooy ña doon def njekk ci seen way wayjur léegi nag kum neex na sàmm bunt boobu kum neex it na ko sàggane bal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw nag sahaaba yi mu ne leen ak a perte ay waay ak a perte ak a perte wax ko ñetti yoon sahaaba yi na ko kooku kan la yow yàlla nii mu ne mooy ki nga xam ne daa dajeeg ñaari way juróom wala mu daje kenn ci ñoom dabul seen bànneex ba yàlla gërëm ko tabbal ko aljanna loolu it dañuy gis ne suñu borom mi ngi ñuy wax ni jëf yi ñu koy jëfal bokk na charte bay tax mu nangu ko moo ñuy def njëkk suñuy waajur borom bi wax ñu ne def na digal naa doom mu def ci waajuram lam mujje mooy ñoo ñu def njëkk day danaa leen nangul la gën a rafet lañ doon jëf baal leen seen bakkaar boole leen ci ñooñu àjjana dig bu dëgg boobu nga xam ne moom lañ leen diggoon ay yow julit xamal ni daw gi ngay daw ci uti say waajur di def seen bànneex day tax ñu gërëm la te buñ la gërëmee daañ la ñaanal foo fekke ak foo fekkewul te yonent bi sallallahu alayhi nee na ñetti ñaan yi day yàlla du ko delloo benn sikk amu ca ñaanu koo xam ne dañ ko tooñ ak ñaanu ku nekk ci tukki ak ñaanu waajur bu ñaanal ay doomam su ko defee mbokk ñuy fexe yit noonu ñuy sakkoo ñaan ci waajur yi ñu bañ leen a fàtte di leen ñaanal na doon loolu ñi ngi jund wala ñi ngi dee waaye rawatina ñu deeyee yow bul jàpp ne man samay waajur dee na a ah, kon perte mbokk mbokk déedéet waajur yooyu day dee nañu waaye ña nga ci place boo xam ne ña nga gën a soxlaa nga laajee leen biir ca mooy foo toll di leen ñaanal foo toll di leen jéggalul sunu borom sunu yeneen sallallahu alayhi wa sallam mu ne nit day daan yëkkati ay darajaam ci àjjana mun a waaw yàlla <clears throat> pay gi moom fan la ma jóge ñu ne ko lii de mi ngi jógee ci sa doom yu baax ya nga bàyyi woon ñu lay ñaanal naka noonu itamit ko jullit doomu aadama bi li mu leble rek lañ koy fay su ko defee heure boo xamee ne nii yaa ngi def njëkk ci say waajur fokk sunu boroom boole laa ko def njëkk ci yow bala ngay dee waaye bu dee yaa ngi toroxal say waajur fokk yàlla boole laa doom bu la toroxal bala ngay dee aka bari ay histoire yoo xam ne nit ñi nettali nañ ko ci aka siiw histoire góor googu nga xam ne doom de da ko jël dóor ko daal di koy diri daal di koy génne kër gi jëm ca penc ma mu ne ko ah, sama doom garab gi de boo ko paasee da ma tooñ ndax sa maam keroog ba ma ko duma fii laa ko yemale loolu mbokk dangay ngay gis mi nga noonu wallahi benn waay nettali na ma ca gëm naa la ma wax ñu ngi koy wax muxtaar toog seen benn dëkkandoo boo xam ne doom ji da koo jàpp dóor ko ba yeew ko jigéen la nit ñi di coow papa mi fekk woon démb na ko ah jarul ngeen ciy na de ndax moom moomu mas naa duma bàyyam ba yeew ko loolu kon mbokk mi ngi noonu su ko defee yit lu baax la ngay def noonu la la ko sa boroom subhanahu wa taala di fay bokk na li ñu gën a puus ci ñu indi suñu xutba bi tey xam ngeen ni suñu xutba bi passé ñoo ngi ko jaglee doon li gën a màgg la ñuy defal yàlla ci kaw suuf ca muy ak julli waaye julli googu it gannaaw ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko ay yum yàlla yónni yàlla li mu koy defal lu mu ci gën a bëgg mu ne xanaa ngay julli ca waxtu wa ñu ne ko waaw gannaaw loolu mu ne ngeen def ngeen def njëkk ci seeni way juru ñu ne ko waaw gannaaw loolu nag mu ne ngeen dem jihaad fi sabilillah kon def njëkk ci waajur moo jiitu jihaad loolu tax benn waay ñëw na ci moom ci loo xam ne albuxaari solo na ko ayum yàlla yónni man dey maa ngi nii ak samay arme damaa bëgg dem jihaad fi sabilillah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko waaw ndax say waajur am na ko ciy dund mu ne ko ah kay ñoom ñëpp ngi dund mu ne ko demal nga jihaad ci ñoom loolu itamit mu ni ngërëmal yàlla day mi ngi ci ngërëmal wayjur waaye merum yàlla mi ngi ci merum waajur loolu benn waaye ñëw na ci loo xam ne ma aw yee nettali na ko ne ay yémi yàlla yónni maa ngi nii ak samay arme damaa bëgg a dabi arme islamique ngir jihaad fi sabilillah mu ne ko waaw ndax amoo yaay juy dund mu ne ko akay mu ne ko demal sax ci ay tànkam ay taxaw ci service am ajjana day mi ngi ci seen suufu ndëggu tànku yaay yi loolu mbokk da gis ne mooy la ñu yeneen ci bi alayhi salaam doon moo tax it bu ñu delloo ci gaa yu baax dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi nettali ñetti nit ñoo xam ne dañoo demoon ci àll muy taw ñu ñu làqu ci benn xunti yàlla dogal benn roche bu rëy ñëw tëj leen ñu ne ku nekk na wax lam defoon ci yàlla rek ci yàlla yàlla rek a tax ñaar ñi daal di wax amma ñetteel bi daal di ne yàlla dey xamoon nga ne man amoon naa ay waajur su ma masaan indi la ñuy reere sama benn soxna wala doom du ko laal lu dul waajur yi ñooy reer ba ma yëg na suur nañu ma doog a jox ñeneen yàlla day bis ñëw naa fekk ñi ngi nelaw ma toog di xaar ba fajar ñu doog a yeewu bu te ne loolu yow rek yaa tax ma koy def yàlla yàlla nag ñu génne fii yàlla daal di leen génne loolu muy wane ne njëkk ba ngay defal say waajur bu ci jublu nit ñi yedd la bu ci jublu am seen alal waaye jublu ci rek la nga xam ne mooy ngërëmal yàlla benn saxaaba mi ngi nii bu ñu wax wala taabiin bu ñu wax oysul ibnu amir alqarani yonente bi sallallahu alayhi wasallam gisu ko waaye mu ne day da ngay gis ne dana am ñu nar a ci jóge Kuufa sama gannaaw ku ñu wax Uwais ibnu Amir mu ne ko ay Omar soo ma nee mu ñaanal la day na la ñaanal ndax nit la ko xam ni ah, dafay def njëkk ci ay way juróom loolu da ngay gis ba mu ñëwee Omar daal di koy sàkk mu ñaanal ko gannaaw boobu mu ne ko dama lay bindal ci góor gouverneur Kuufa mu ne ko déedéet bàyyi ma ma laqatu ci biir nit ñi ma ma gënal bal am na riwaay yi wax sax ni ña ko teewe woon dañoo mujjoon ñëpp ñëw naan ko ñaanal ma ñaanal ma guddi la xëy rek takk ay bagage am kenn xamul fu mu jëm loolu moo tax ba ngal la way mbokk jurit ñu ngi leen di ñaan ngeen jël ab dogu gu rëy ci néegu yàlla bii ñu yàlla dajale képp koo xam ni gisoon nañ doon na def lu ñaaw ci ay waajuram ngal waay na tuub dellu ci ñoom da leen di ñaanal yàlla ne fexe ba dab la la nga xam ne <coughs> mooy seen bànneex loolu sahabatul kiram day ak mag ñu baax na daawuñu deñ di ñaan seen boroom te yàlla boole ñu ci ñi nga xam ne daañ fexe ba seeni wayjur gërëm leen ndax lañ yëgoon ne suñu amee ngërëmal wayjur rek daañu am ngërëmal borom bi subhanahu wa taala benn waaye ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu yàlla yoon yónni ñi may leen jëflanteel ci kaw suuf ana kan nga may digal ma gën a rafetal jëme ci moom mu ne ko sa wayjur mu ne ko ah gannaaw sama wayjur nag mu ne ko sa waajur mu ne ko gannaaw ba sama waajur wu góor wu jigéen sa waajur bu jigéen te ñetteel ba mu doog ko wax sa waajur wu góor loolu kon mbokk nañu ci bàyyi xel bu baax te mooy li ñu jàng sànq ne bu la waajur yi màggatee sa wet bokk na tey benn erreur bu mag boo xam ne suñu jeune intellectuels yi roy nañ ko ci tubaab bi mooy waajur yi coono bu ne dañ koy daj ci yow ba nga doon ko arrivé nga xëy xëy na leen fa ñukk dem luy ab appartement bàyyi say waajur ndax jàpp ne dëkk ak waajur yi dañ lay sonal fàtte la nga xam ne fa nga jaar ak la nga xam ne mooy waajur yooyu ay yow mbokk jullit bi jàpp loolu nga la waay fàttalikul keroog bala si yaay ëmbee juróom-ñeenti weer yoo xam ne mosul teqalikoog yow guddi mosul teqalikoog yow bëccëg waaye bàyyil xel keroog ba muy wasin nga xam ni kenn boolewu ko ci ñiy dund kenn boolewoo ko ci ñiy dee ba sunu maam yi dañ daan wax diw day mucc mucc na biig ay mucc na ca la nga xam ne mooy dee fàttalikul ba nga génnee lan moo tuuru ci moom ci deret lan moo tuuru ci moom ci irangooñ fàttalikul loolu abdullah ibnu omar radiallahu anhu benn waay mi ngi ko dajeeg yenu yaayam ci benn chaise di wër moom kaaba gi ne ko ay ibnu omar xanaa sama way jur day fay naa ko mu ne ko déedéet fayegoo ko sax benn ñenkar bi ba mu doon ñenkar bi keroog ba mu lay matu waaye nag def nga lu baax loolu kon mi ngi noonu ba nga juddoo fàttalikul meewam moom nga doon nàmp bokk loolu ci deretam la jóge jógee min bayni farsin wa damin la jógee ci deretam la jógee nga koy nàmp deretam diiru ñaari at waaye nga la way bàyyil xel bi nga xamee ne bëgguñu la taq ma ngay fóot ma ngay paase ma nga lay sang nga la way bàyyil xel jamono bi nga xamee ne nii heure boo nekkee ci tiit moom mu tamit mu nekk ko jaaxle nekk di la dalal waaye nga la waaye mbokk bàyyil xel li nga xamee ne nii xër gu màgg goo xam ne amoon nañ ko ci lekk bu dee benn ñu jox la ko ñoom daal di toog waaye bàyyil xel jamono bi nga xam ne boo feebaree ñu feebar ah, jóg taxaw lépp lu ñu man ngiree nga wér nga bàyyi xel loolu nga la waay bàyyil xel sa bàyyi mi nga xam ne moo doon dang dangi gu dégg ba cëkk ngir dund kër gi ngir koddayu kër gi ngir tabax kër gi wala location kër gi nga la waay bàyyil xel ñaan yi nga xam ne daawuñu deñ di la ko ñaanal ak jubal gi nga xam ne daanañ nekk guddeeg bëccëg di la ko jubal nga na nga bàyyi xel la nga xam ne mooy mbooleem coono yooyu nga xam ne way jur mën na sacri sacrifier boppam ngir ëllëg ay doom doomam réussir waa jur dong moo bëgg doomam gën ko waajur dong moo bëgg ka nga xam ne mooy doomam daal di koy sut waaye ngal la way fàttalikul bi ngay xale képp ku mas a dal ci sa kaw dana jóg ci làmmiñam daal di lay défendre ba wolof njaay yi dañu naan saaba ba yaay di fóote doom day du jeex ak noo mën a mel nit ñi bañ la mën na am sax la nga xam ni ñi la gën a jege waaye amma ku mel ne sa yaay dañoo gis ne abadan moom du deñ ci foo mën a toll di sax ci di la défendre ca loolu nga xam ne ca ngay nekk su ko defee mbokk jullit heure boo masaan dem àll daal di guddee wala ngi nekk xale daal di réer am na waajur yoo xam ne dañuy def completement complètement mënuñu teqalu ko yoo benn bis fu ñuy dem ñi nga la boot yu baale la ngal la way fàttaliku loolu ndax mbokk yi ñu wax yépp nga xam ne lu ndaw la ca fa waajur jaar ak ñoom doomu aadama bi dana ko xam ba pare daa di sànni ay waajuram sori ay waajuram jàpp ne waajur yi dañoo compliqué mbokk loolu lañu xam ne ki ñu ko indil mooy occidentaux yi waaye ngalla waaye yéen ndaw góor góorgóorlu leen ci seen kemtaleel kattan ngeen delluwaat xam ne ko bëgg réussite ci àdduna yoon wa mooy jubal ak say waajur ko bëgg mujj gu rafet ci sa njaboot yoon wa mooy jubal jubal jubal ak say waajur <coughs> képp koo xam ne bëgg na tabbi aljanna ci loo xam ne nii du ànd ak benn coono ngalla waay na nga jubal na doon koo xam ne da ngay jubóog ak li nga xam ne moom mooy say waajur su ko defee kon sunu borom yàlla jalla wa ala moom la ñuy ñaan yàlla nañu yàlla boole ci ñiy laaye biir seeni waajur na doon ñooñu dañoo dund ñuy def ñoom njëkk wala dañoo dee fu ñu toll ñu leen di ñaanal ko jéggalool yàlla yàlla jéggal ñu jéggal suñuy <laughs> njaboot jéggal mbooloom njabootu jëlit yàlla yàlla dëppal nañu ak ngërëmam jàppale ñu ak ihsaan ak tawfiqam allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar rabbi ixfir lana wa liwalidina wa lijamii almuslimin rabbi ixfir lana wa liwalidina rabbi irhamhuma kama rabbayana sagira اللهم اجعلنا من الذين يلحق بهم ذريتهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain